da carrière yàggu jaamu yàlla nag moom fii ba cent ans da nga gis magum juróom-ñeent fukki def mhm. euh, lan nag yan soññee ngay dugal ci pas bi ñu war am ci roy ak gën a fonkaat li nu am te xam ne itam um tëlewuñ dara suñ ko suñ ci góorgóorloo te jéem a roy ci mag ñu baax ñooñu waaw xam nga sëñ Babacar euh, jotaay bi sëriñ Ahmadou da ko tënk ci ab nuyoom rek al imaanu al islaamu al ihsaan mhm. gis nga lislaam bi mu la waxee ni boo amee fukki at ak juróom daal na lay tàmbalee xool fooy dugg ak fooy génn tere la yoon wi jaarloo la ci yoon wi dagan la lii araam loon la lii. moom lislaam moom lislaam ci boppam. boobee la nit ki war a xam ni fii mu tàmbalee balaa amaat fukki at ak juróom yi nga xam ni dañ ko ci am mbaa yàlla woon moom war naa am boroomam war naa am waaw. Cheikh Moustapha. waaye juróom ba ca kër ga ndax man kat daa am lu ma ci dal suñ suñ suñ Moustapha man sama bàyyi daana ma tere yu bari waaye dama ko bawoon ngir moom mus mus mu sa teg bëtam ci lu may tere du football du yu bari bari yoo xam du ma ko lim waaye nag lu ci ne du ma jàkkaaram di ko def waaye saa yu ma làqoo di ko def ndax damay jàpp ne moo ma ko sa bàyyi waaye xamugoo lislaam hmm. dal euh, a hmm. Hmm. bi dafa da ko bañ ba ba ne maa leen warlul bind ko ngeen am ko ngeen ngeen xam ko xam ko kon def na effort bu nekk. moom yàlla sëñ bi sëñ bi laa wax. moom sëñ bi sëñ bi dafa wax ni. ngir ñu xam suñu boroom ngir ñu man koo am léegi tax ñu xam ko ba am ko moom moo moonu war warul bind ki nit ñi rus nañ nit ñi waaye rusuñu yàlla moom. Mmh. Euh, Cheikh Moustapha mi njëkk a wutu sëriñ bi. Mmh. ci ñeen fukki at. nga xam ne booba xëy na sëriñ bi moom mi ngi ci ay juróom ñaar fukki atam wala juróom benn fukki atam ñu topp. Cheikh Moustapha moom ci ñiin fukki atam li mu yoraloon boppam ak li fi sëñ bi bàyyi ci ñiin fukki atam la yor lépp moom. Mm-hmm. te bi muy egsi ci ñeen fukki at lu nit di am ci àdduna wala mu di ko xam mu di ko jariñ àdduna wala ëllëg moom am na ko ba noppi. Mm-hmm. nga xam ne li ci dolli ko mooy li sëñ bi loon mbindee fii loola loo loola rek a dolli ko te loolu moo di ndaw foofu la ñuy wax dëgg-dëgg nit ki ak ndawam. wala waral mag ñi. baatam mag ñi ok ndax bu dee jamono jamono bi weesu moo gën di gone suñu jamono ñi mag ñi am na ñu naan sax ñoo magoon mag ñooñu kun ñi mag ñi mm-hmm. a wax waaw kim koo dégg ñuy wax mag ñi ngir roy ko lan koy waxe mag ñi la mu def ban kon ban boole ko ca mag ña ba mu koy def weesoogul fukki at ak juróom mi yi nga xam ne togguñu ko ci ay jëf ba ci ñaar fukki at ak juróom muy ñeent fukki at lépp ci leen ko def ci leen am yàlla ci leen am yonentoom ci leen am sëriñ bi ci lan lépp lépp lu leen topp rek ci diggante boobu lañ ko am. soxna Diarra de misaal la ci. waaw soxna Diarra misaal la ci euh, waaye Cheikh Mountakha du du ma mii rek sëñ bi sëñ Abdou di nekk daa am yu mu soxla woon moom sëñ Abdou te yooyu mu soxla woon tasaaroo ci réew bi ba tax na kenn kenn rek mënut a xam fu fu mu maase nekk. Mm-hmm. ñoom ñi nga xam ne nag ñoo ko ñoo ko gën a jege mu woo leen mu mu fexe ban xam ñoom ñoom ñu bari ci ñoom ñu xam ni. lii itam la te mu daje fi barab rek la ca bëgg. sëñ Abdou moom nee na booba itti ju mag la def waaj mel ni kuy tukki bitim réew. Mhm. wuti ngir ngir wutim koom. la mën a am lépp ak wàccaay ya ya nga xam ne fu mu ko fekk kooko dana ko mën a teral teraanga ju tax mu indi li sëñ Abdou bëgg yépp du ko waajaale. nee na am ci lenn loo xam ni bi muy gëstu mbooro la ko dégg. nga xam ne waaw nga xam ne xam naa yoonam woowu mu moo yoonam mu njëkk Mboro xamu fa dara nee na mu waaji fii dem Mboro fexe ba xam fan ni fa la a nekk ak ka ko hmm. dem nekk ak moom lépp lu mu jàpp ni bëgg na ko lam ko njëkk a defal mooy fàttaliku yére yam xamoon ci sëriñ bi muy muy yére yi murit mu ñëw ci lu bari yóbbaale am ni ko ko xamoon na ci kër sëñ ba dara dafa mbooro sori na xëy na yooyu dem na ba tàmbalee doon jeexital mu mu mu ñëw ci lu bari yóbbale nag ba noppi nag man ko koo jox ngir sëriñ bi jige ko ba koo ko am nag ci moom cofeel ak bëggug nag lii mu fi wut si mu jox ko ko mu jox ko ko mm-hmm. sëñ Abdou bi mu ci jotee itteem daal dinay jeex mbooro ni ku doon wut yàlla mu wóor am nga ko bi mu ñëwee ba ak sëñ Abdou bi sëñ Abdou tegee bëtam te wax na ko fa baat boo xam ni bu fekkan lu ba yàlla dong lay wut wala sëñ bi wala lu baax dong su ko neexan bis boobee ba lépp lu yàlla namm ci moom dootul xëy wala mu gont ngir luy defal àdduna wala luy defal alaaxiram mm-hmm. waaye sëñ bi boo ko fekkee tey tey këram da ngay jàpp ni mësta am lu baax lu mu bàyyi xel daa mel ne lu baax am da kon ko ne ci kanam te mm-hmm. àggagu fa ci itti rek du mu am mm-hmm. diggam ak sëriñ bi diggam ak yàlla diggam ak yonent bi diggam ak. Ousmane de déggoon na lu mel mu yonent bi teewutoon. ok Cheikh Mouhamadou dafa wax ni kaddug yàlla gi bu mu laal suuf. Hmm. kalimatullahi iyal xuliya. da di wax ni nañ ko yëkkati. bu mu laal suuf bu mu laal suuf foofee dafa jëfandikoo ay baat yoo xam ni man ca jamono yi rek daf ma fàttali lu dafa jëfandikoo ay baat yoo xam ni man moo keroog laa ko njëkk a ci moom bu mu laal suuf. ba ci man ñi may wuutu sëñ bi kàddu googu garaaw la mm-hmm. nga xam ni ñi fi nekkal ñëpp moom digal am nañ ci ndigal ci képp kuy roy ci moom mm-hmm. waaye wax jii na fi des ba ña sama ginnaaw ña fay ne nan xam ni lii moom dul war a laal suuf mm-hmm. bu laal suuf ci ñu koy wax waaye bu laal suuf ci ñu koy jëf lim ma fàttali mooy baatub bu laal suuf bu mu laal suuf radiyallahu taala anhu sëriñ Mor Diouf Diatty musaana liggéeyal sëriñ bi néeg yëm ko daan liggéeyal ca saw jant ban war koo indi njaareem ba kenn ku ne mu yan la ci loo attan daan lii ma la yan ba mu laal suuf fii ak njaareem mm-hmm. xoola saw jant fa mu nekk ak njaareem fa mu nekk ñu yan la ci lu mu ko wóor ni lii moom attan nga ko mun la nag lii ndigal li mooy ba mu laal suuf li fii ak ngay àgg njaareem nga xam ne mag mu ci dem wax na ni ba sonn day àgg ci garab gum gum ko gum ko mën a teg wéer ci boppam ba noppalu ba yëg ni noppalu na jëlaat ko ci boppam dem waaye kenn mësu koo yanoo foofa ba njaareem laal mu laal suuf waaw kii mën a jël jumtuwaay yi jëme ko ci kilifaam fonk kilifaam tax mu ni ñu diggal leen laal suuf nga fexe ba laalul suuf waaw sa digg ak jaamu yàlla nag mm-hmm. xam nga kooku moom wuur na ko nii liñ ko diggal ci jaamu yàlla lim ci xam mm-hmm. jëlul sax nga di ko soñ naa ko ba mu laal suuf mm-hmm. ndeem lii rek la mën a sàmm ba ba laalul suuf ci diggante bii coono yi nga ciy toggoo. ci diggam ak nitu yàlla saaka yàlla suñu borom ci diggam ak nitu yàlla saaka yàlla moo tax ñooñu ñoo jàngoon ñoo déggoon ñoo xamoon sëriñ bi. ñoo ñooñee nag la sëriñ bi bëgg sëñ Abdou Samad ñoo moom ñoo ñee la bëgg ku mel ni sëñ Ahmadou gis nga fi mu daaneele kàddoo bi sëriñ bi kii dañ ko war a diglu. Hmm. waaye waru ñoo yem ci di ko diglu dinaa koy wax kilifa yu bari ma toog ñoom sëñ Ahmadou mii bi mu koy bi ma koy bàyyi xel. Hmm. di toog fi kilifa di ko tudd te yàlla képp ak sëriñ bi tax boobaag léegi mat na fukki at. Hmm. ma leen wax ni kun mën a liggéey sëñ Tuubaa yi nii. Hmm. maanaam kii ma des naa amee ngërëmul sëñ Tuubaa ci moom. man bu ma koy diglu sama digg ak sama borom danaa yëg ni kii li muy wax bu mun taxaa toogoo nit. noonu la koy génnee. sëñ bi loolu mooy dëgg. dëgg soo amee foo ko mën a wax ak foo ko mën a rek des am na lu ca def. teew na waaye danoo war a liggéey maanaam man gëm naa ne war nañoo liggéeyal Serigne Touba ci moom ndax ñoom nin ko bëggee. Hmm. ngir ñu jegeñal ko nit ñi ngir ñu jariñoo ko ndax ñu mën a jariñoo Serigne bi da cee am taw feex joo xam ne ña ko ca fekk bariwut ku mel noonu ku ne nag diglu ko ak bàyyi ko xel ak taatan ko ak roy ko. Hmm. ci li muy wàcc mu xam ni euh, njariñ rek la. Hmm. loolu da ca am solo lool waaye daal euh, sëñ Babacar ndaw ñëpp nañ xam ni. ñi ni wax mag ñi ba yéem seenu mag ñi lan amoon ca seen borom te jaare ko ci roy sëriñ bi kenn amu ko ci sa ginnaaw ñeen fukki at jëm sa jur jëm juróom-ñett fukki at kenn ku nekk la nga am ca yàlla sa borom am ko ca yonentoom am ko ci sëriñ bi ba bam la beree tund yëpp daw riir wut si ci yow te lan doon dégg ci sëriñ bi ba ñëwee fekk ko te kenn ku ne am ca lu kawe sa njort ban koy am fii ndaw ñi toll ñu di leen wan sëriñ bi ak di leen fàttali sëriñ bi foofa lan tolloon te ni nga ko waxee rek yow sëñ Babacar ci sa ubbi ñoom day sëñ bi sëñ bi diggam ak bi mu njëkkee gis alayhi salaatu wasalaam fii ci daaru xuddoos gis bu siiw boobee pas-pas ak itte ju kawe ak yéene ju rafet rek a tax mu dem ba nag am bis bii woote ni sant leen ma ci boromam moonte fa mu doon yanoo yan ba foofee la fase foofee la yéenee woon foofee la itte ji kawe woon Mm-hmm. moo tax nag bi suñ borom jeexalee natt bi nag fay ko ci loo xam ne bi mu ko sëppoo ay bëtam xam na ni lii moom ñoñam ñëpp bu ñu yemoon ci di sant seen borom ngir lii mu ko defal sax dëbbuñu ak xam waaye kon mu wut bis bu kenn musta wut kenn musu koo am ci moom lañ ko njëkk a déggee te ku ko am ginnaaw moom nga ko royee muy ñëw leen nag sant le sama borom. da koo ber. bisub sant yàlla de yaa de bisub kaay mm. <laughs> xanaa kon tekki ne du lu neex lañ ko war def. waaye ah, lu neex ak ci lu naqari. waaw ah, ci lu war di sant borom bi. Mm. Ah, jërëjëf sëriñ